Assalamualaikum Senegal ma ngi leni nuyu man le président association bokku gemburu da am nag nakaru ñu ñew diko manifester tay nakar bi nak du lenn luddut mburu mi nga xamne mom lañ nara yok di wax suñu président Macky Sall ne ko bis bo baye ñu yok mburu mi ñun séeréer di nan xaru waaw paré nañ pour xaru bis bu mburu mi yokkoo rek ñun paré nañ pour xaru waaw ndax ñun amuñu gëmuñu yaakaaruñ ku dul mburu mburu lañu gëm tay mom lañu gëm ëlëk kon nak bis bo sétané bañu yok mburu mii ci Sénégal ñun séréri paré pare nañ pour xaru ndax jaral nañu ko waaw ñun santé bi baña dox sax te mburu mi dox ñun moñu gënal waaw santé bi ñu tej hôpital yi sax ci ubbi boulangerie ñun moñu gënal ndax ñun séréer mburu rek lañu gëm waaw kon nak ñi ngi lay ñaan président mburu mi nga japp ci ba buñ ko yok waaw bis buñ ko yokkee rek ñun séeréer yi dinañ xaru waaw ca séeréer yi bis bu ñu xaroo plan Sénégal émergent bi dootul émerger waaw ndax ku wax émerger di nga wax mbay waaw ca mbay bi séeréer yee koy def Sénégal bis bu séeréer yi xaroo nag mbay dootu fi am kon maa ngi lancé appel képp ku dégg lii rek na ko jotali keneen ndax Macky Sall mën cee jot ngir ñu maja yokk mburu mi ndax ñun mburu jaral nañu lu ne ñun séeréer yi mburu rek lañu gëm moom la bëgg moom la waaw kon président Macky Sall ñu ngi lay ñaan mburu mi nga teg ci loxo ñu bañ koo yokk waaw ñun na lépp yokk ba mu des mburu mi wasalaam